jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ñu taxaw ak champion bi nga xamante ni wala ñu toog ak champion bi nga xamante ni mooy Balla Diouf euh, nekk champion bari na loo xamante ne def na ko ci làmb euh, tey kenn du ko natable sampion ak fi nga xamante ne tolluwaay bi mu am ci làmb ak mbëri euh, gëdd gi nga xamante ni jox nañ ko ko ñu fas yéene waxtaan ak moom ci lu baree bare Balla maa ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum wasaare làmb. Euh, di leen nuyu di leen sargal di kontaan trop ci daje bi ñu daje fii wax dëgg yàlla su may wax ci wasaare lam moom dama ci ànd ak fierté ak mbégte ndax euh, développement Sénégal ak développement jeune Sénégal yi rek a leen tax a jóg surtout mooy ci sport bi nga xam ne moom la ñu tànnal sunu bopp muy làmb ngeen ciy def liggéey bu am solo ñaan yàlla dooleel leen ci ah euh, ba fu ngeen bëgg a àgg. tey ci audiovisuel wala média yàlla àggale leen fa bi jaaxi nabi Moustapha. salaam sa combat bokk na ci làmb yi nga xamante ni ci laa njëkk a dugg stade Iba Mar muy sa diggante ak Zos bu njëkk ba euh, mu nekk fierté tey ma jàkkaarloo ak yow euh, di waxtaan ak yow ci làmb actuellement làmb bari na ay coow yoo xamante ni jot na ci xew barki démb gis ngeen ministre de ministre bale nu mu tuddate de la justice am wax boo xamante ni daf ko wax ci làmb euh, wax ji ñu bari ñaawlu ko. Euh, ban taxawaay nga ci am. waaw euh, li ma yàgg wax rek ci euh, ñun mbër tey Sénégal mbër toll na foo xam ne tey tey war nañu jóg nag taxaw xam suñu bopp xam ñun ñooy ñan xam lan la ñuy tekki ci réew mi xam lan lañuy ñuy jëriñ réew mi parce que tey buñ jógee ci benn entité boo xam ne ci Sénégal. ah defe naa ni li muy contribuer ci Sénégal amul benn mécanisme d'État wala benn association wala benn euh, club bu koy bu koy bu koy def ci Sénégal mooy tey la paix sociale parce que làmb tey li muy li mu contribuer ci la paix social amul benn entité bu koy contribuer ci paix sociale tey làmb li muy contribuer ci développement économique bu Sénégal amul benn entité wala benn sport fii ci Sénégal bu koy contribuer ci développement économique bu Sénégal tey la preuve euh, affaire yi ba mu amee làmb ji arrêté tey gis nañ li xew te ba ñu fi ubbee làmb ji bañ fi ubbee football bi ubbi course bi ñuy ñuy ñu téye làmb loolu injustice la. tey làmb ci réew at nu mu mel ci réew tey état li ko waroon ci làmb mooy tey ni ñuy subventionné yeneen sport yi. di jël ay milliards di ko dugal ci football bi te football mosuñu indil satisfaction. li ñuy jël ay milliards di ko dugal ci ay basket ak ay yeneen ak yeneen jël ay milliards dugal ko ci ay ay te ay taleeg ay ay tereeg yu kenn xamul tey dañu waroon jël ay milliards dugal ko ci làmb ji mooy tey gox bu nekk nga am tey dooleel maire yi ba nga xam ne tey gox bu nekk di nga am sa benn arène municipale tey gox bu nekk Sénégal waroon na am arène municipale ba pare ñu am arène nationale tey arène nationale bii ñu am ñu ngi ne def nañ ci 32 milliards mais tey ñun suñu problème ñun ñëpp dafa confuse parce que tey bu ñu nee def nañ ci milliards ñu gis boo duggee ci arène bi ñu ne lii don la. tey loolu tamit war nañ ñu édifier lu bëree bari bari bari tey ministre bi jóg na génne ay kàddu France 24 ne tey boo gisee lii xew ci Sénégal mbëri yi ñoo frustré wu ñoom ñoo toog un an liggéeyuñu euh, xiif sonn moo tax ñu génn tey loolu c'est très très très très très grave. c'est très grave tey monde làmb tey. waroon nañ jóg ñëpp tey man li ma njëkk njëkk xaar sax mooy tey ki nga xam ne moo jiite làmb muy ministre des sports mu njëkk génn def démenti. mais ministre des waxu ci défendrul làmb défendrul mbër loolu lu ma net lu ma metti la. tey mun président CNG mun nañ ne dañ ko fa teg ci ministre bi la dépendre mais bi nga xam ne tey moom moo jiite làmb moo waroon nekk le premier sénégalais bu njëkk génn défendre les lutteurs défendre la lutte. parce que moom ministrul mbëri lañ ko tuddee comme ni mu ko waxee moom. tey moom moo waroon njëkk a génn en tant que ministre des sports xel moom xam gi mu xam mbëri at fréquenté gi mu fréquenté mbëri moo waroon njëkk taxaw teggi loolu teg ko fële amul. tey làmb dafa tumuranke tey ku jóg rek jël sa xeer dóor ko ci kaw mbër stigmatiser ñu. waaw loolu ci loolu laay ñëw Balla mu mel ni du ñu gis ku mel ni euh, président Gris Bordeaux euh, mu nekk président des lutteurs en activité génn def benn sortie euh, ñaawlu loolu ba ni day porter plainte ki nga xamante ne mooy ministre bi ñu jékki-jékki gis ministre bi recevoir ko mu ñu wax lañ fay waxante ñoom ñaar ñoom ñoo ko xam jékki-jékki gis ay xale yoo xam ne ay mbër lañ ñu génn méttit lu loolu ñaawlu ko wax ci ay wax yu nekk loolu nan nga ko gisee. man defe naa ni tey ministre bi. tey bu demoon ba war a rëccu li mu war a wax war a taxaw baalu tey France 24 ba mu waxee woon tey foofu la waroon defaat déclaration baalu àq mondu làmb baalu àq sénégalais yi baalu àq ñi nga xam ne mooy mbër yi tey du ay recevoir le président Gris Bordeaux parce que Gris Bordeaux président association rek la association des lutteurs mondu làmb les lutteurs nekk du ñëpp nekk ci association boobu y des associations des anciennes gloires am na association des sages am na association des lutteurs bu giri jiite association des ménagers ñi ngi fi association des entraîneurs ñi ngi fi ñoo ñëpp ci monde làmb lañ bokk même promoteur ci monde làmb lañ bokk tey loolu ci kaw ñëpp la dal tey je pense que ministre bi li ko waroon tey mooy du woo ay président Gris Bordeaux di ko recevoir ci ay bureau di ko baalu àq wala xaw ma xaw ma sax lu fa xew tey li ko waroon mooy tey mu def mu taxaw jàkkaarloog presse Sénégal bi solennellement taxaw baalu àq sénégalais yëpp ba pare baalu àq mbëri tey loolu moo ko waroon mais baalu àq boo xam ne ci bureau la kii ça signifie rien. est waroon naa génn rek def sorti ne mbër yi bu ci kenn waxati wa mel ni comme comme si que làmb ji euh, jox nañ ko bopp rek dafa war a wax lu ko neex da ko war a def lu ko neex na mbër yi bu ci kenn waxati ba tax mbër yi mer fi le problème anaka euh, président Gris Bordeaux dëgg la moo jiite association bi mais tey bu la ministre woowee ci cas bu mel nii nga xam ne dafa sensible te dafa laal sénégalais yëpp laal képp ku mës a takk ngemb tey bu ko ministre bi wooyee tey li mu ko li ko waroon def li mu waroon mooy tey dajale mbër yëpp bañ fiy def conférence de presse dañoo woo mbër yëpp. ñu daja fii ci Cheikh Kacha ñëpp toog parce que métit bi yëpp ñoo ko bokk bañ fiy def euh, di def appel ci état bi dañ def benn émission at Pape Cheikh Diallo mbër yëpp fa teew. mbër yu mag yëpp ñuy wax ci làmb ña nga fa teew kon wat gaal ak yëgoo ba ko ministre bi wooyee man li may wax man la engagé. boo ko ministre bi wooyee waroon na woo association bi ñëpp ñu toog woo képp kuy mbër Sénégal ñu toog ministre bi tey dafa waroon woote foo xam ne tey mbëru Sénégal yëpp mun nañ ko fa fekk. muy arène nationale muy arène nationale tey dafa waroon ñëw arène nationale mbër yëpp a toog mu baal leen àq. je pense que loolu moo amoon sens et président Gris Bordeaux xam na xër xërteem at yéeneem tey pour man saa waru woon wax ni tey bu ci benn mbër wax parce que lii parce que wax ji am ñaaw na ba pare parce que tubaab yi nekk fële dégg ñu olof tubaab lañ dégg te ci tubaab lañu ñu ci tubaab la ñu saagaa tey dafa waroon tey dem baalu ji àq ci tubaab au niveau de France 24 ba pare door a wax ak sénégalais yi tey je pense que lii du problème mu Gris Bordeaux moo war a taxaw ne benn mbër waru ci wax tey kii képp kuy mbër Sénégal wala ngay association bu jiite mbër ci Sénégal war nañ ci wax te ministre bi tey war na taxaw publiquement baalu àq publiquement tey ñun man li may wax mooy tey plainte boobu ñu dañ ko waroon def mbër yi dañu waroon génn def sitting parce que tamit boo xoolee ñun rek la ñu ci Sénégal làmb mooy sport bu amul benn survention làmb de surventionnel état du surventionnel làmb bu ñu waxee promoteur bi ñëw di dugal xaalis ñu ne privé la. jël loo xam ne moom suñu sport national ñu ñu ne léegi ay privé ñoo koy organiser. loo xam ne tey lii suñu budget tey suñu budget Sénégal bi ñu am. di ci woote budget wu ay oto di ci woote budget wu essence di ci génne xaalisu leneen ak leneen mais tey li téye paix socialu dëkk bi muy làmb lan lañ ci def defuñu ci dara arène nationale bi bañ ko amee ba léegi la làmb gën a arrière. moom la ñenn ñi tuddee sax bàmmeelu mbëri. mooy bàmmeelu mbëri parce que ba làmb ji ba arène bi ubbee ba léegi làmb dafa mel ni dafa gën a nax saay te tey ñun dafa am lu ñu tàmmoo woon ci làmb tey ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi tey làmb dadaa am ñu leen ko daa tuddee di tuddee ay ministre di tuddee ay nii ay naa ñu ñëw bokk ci làmb ji xam li làmb jiy dox mais tey ba fi ministre yi ñëwee ba léegi ñu gis ñu tuddee ministre fii làmb ba fi Macky Sall ñëwee ba léegi ñu tuddee ministre làmb mu ñëw ci làmb amul benn ministre bu ñu fi tuddee làmb à part Matar ba mooy ñëw ci làmb parce que dafa bëgg làmb ci li mu wax tey état war na di surveiller budget Sénégal dañ ci war di boole survation wu làmb parce que football dañ koy survationné basket dañ koy survationné handball dañ koy survationné ah sport yëpp dañ leen di ba mu des làmb xanaa làmb bokkul Sénégal parce que léegi nee nañu mbër yi koy def ay dof lañ nañ arrêté di stigmatiser mbër yi naan ay dof lañ mbër boo gis dafa yor njaboot am ñu topp ci ginnaawam tey fii Sénégal ku fi bëgg a siw làmb ku fi bëgg a jaay sa produit làmb ngay ñëw euh, politiciens yi ñoom ci seen yopp ku ci bëgg am tur président dégg la wala leneen ci làmb ngay làqatu ba am li nga bëgg tey nañ bàyyi di jël làmb di ko jariñoo bu leen làmb jariñee ñu falax ko làmb tey dañ ko war a structurer waat ba pare di ko accompagner ba pare budget Sénégal dañ ci war boole subvention wu làmb loolu mooy yoon ëllëg ñuy naan privé làmb privé la làmb du privé làmb c'est un sport national boo xam ne tey li ëpp ci genu dëkk bi nga xam ne tey euh, amuñu chance su intégré ci ci société bi tey làmb moo leen di promettre avenir te làmb boobu di promettre avenir jeune Sénégal yi làmb jooju dañ ko war a dooleel làmb jooju dañ ko war a fonk tey bu ñu gisee Sénégal. amul benn mécanisme buy permettre jeunes yi réussite. amul moo waral tey jeunes yëpp a ngi daw jeunes yëpp a ngi génn dëkk bi mais mbëru làmb yi ñu ngi toog di muñ li leen neex ak lu leen naqari. toog ci dëkk bi xeexuñu xuloowuñu tey nga jël naan ay nervi lañ tey nga jël naan ay lii lañu wala ay lee lañu c'est c'est très grave c'est des c'est des propos très très très très grave je pense que mbër yi euh, mesuré wuñu impact wax ji ministre bi wax. xëy na loolu moo tax ñu oyofal ko nii mais tey jafe naa ne ñun ñi nga xam ne tey am na lu ñu xam tuuti ci réew mi tey yàlla def na ma am ay xaritu tubaab nasaraan yoo xam ne ci ONG yu bëri lañ nekk depuis deux mille 2004 may liggéey ak ñoom tellement que ñoom affaire bi ni mu leen épaté sax ñun épaté wuñu noonu ñoom en tant que tubaab que c'est tellement grave c'est des propos tellement tellement tellement grave waruñu ko mëpp mëppal nii rek dafa war am ay action dafa war am ay actes yu concret mooy ministre bi taxaw Sénégal ñëpp taxaw mbër yëpp taxaw mu ñëw arène nationale baalu mbër yi àq parce que li mu def c'est très tey du ko def ay doomam du ko def ay jarbaatam du ko def ay njabootam ñi mu ko def nag ay njabootu jàmbur lañ te ay doomi gor lañu ay seeni i papa yi ay gor lañu seen i yaay yi ay gor lañu ñoom seen wàllu bopp ay gor lañu kon waruñu jël tel propos lu toll ni ci ku yor justice su réew di ko di ko teg ci benn entité ci askan bi. mu mel ni kon président Gris Bordeaux moo ko baal waaye mbëru Sénégal ba tey jéggaluñu ki nga xamante ni mooy ministre bi. déggoo ma de président Gris Bordeaux moom mun na ko baal mais mbëru Sénégal yi askan bi li mu jël lii teg ko seen kaw tey ñoo ñu ngi koy demander solennellement mu ñëw taxaw arène nationale woo mbër yëpp baalu leen àq. Euh, Balla tey ñu ñëw ci làmb 4 euh, avril ku ko tudd xam ne am na affiche bu mag ndox ci diggante Lac de ak Eumeu Sène combat boobu noo ko gisee. waaw combat des champions la combat la boo xam ne wax dëgg yàlla euh, Eumeu Sène ku ko xam roi des arènes ku xam Eumeu Sène tey ci Sénégal xam na ni champion la kenn du ko natable ci dara. ku xam Lac de Guiers aussi ku ko xam Lac de Guiers tey ci mini championnat bi ñu jógee woon CLAF ba 2004 moo ko jëloon tey bëri na ku mel ni ni daan ko bëri na keneen ak keneen daan ko bëri na ak champion yëpp daan leen te mooy benn mbër ci Sénégal bu am benn défaite. donc combat boo xam ne tey ñoom ñaar bëri na ñaari yoon benn bi ñu match nul ma seen daan ko deuxième combat bi seen troisième combat nag leeral bi nekk nii. donc nag mu nekk combat boo xam ne Sénégal ñëpp a ngi koy xaar di ñaanal ñaari mbër yi yàlla may leen kattan at wér yóbbu leen ci ci bés bi ci jàmm et li ki sénégale yëpp di xaar ci ñoom at promoteur bi muy fulla fayda jom muy bëree at jël bu leer yàlla indi ko ci jour boobu loolu rek laa si ñaan. Lac de lan mooy avantage am ci champion bu mel ni Eumeu Sène ngay bëree ak moom. waaw la Eumeu Sène euh, defe naa Lac de Guiers liy avantage am. mooy ci combat bi parce que euh, bëri nag Eumeu ñaari yoon kon je pense que ci xelam bu gàtt war na xam Eumeu Sène koo bëreel ñaari yoon war nga ko xam kon war na ko xam tey avantage mooy tey euh, mu bañ a may Eumeu dara bañ ko moytu ñëw kole ko corps à fexe combat bi gaaw. moom fexe combat bi gaaw. que mu bi bañ a yéex parce que Eumeu Sène mbër boo xam ne diesel euh, la lu muy combat di gën dem muy gën a tàng. di gën a nekk ci biir combat bi di gën a am confiance donc la de tey li mu war a def rek mooy ñëw tey wàcc tolloog Eumeu Sène corps à corps teel a xeex ak moom teel a bëre moom teel a teel teel a lépp lu mu ciy def daal na gaaw Euh, Eumeu Sène lan mooy avantage am ci nga bëreeg Lac de bu njëkk ngeen nul deuxième fois bi nga daan ko ngeen war a bëre une troisième fois lan mooy avantage waaw Eumeu Sène liy avantage am mooy euh, ñaari combat yi jot yëpp ci yi ñu yëpp ci avantage yu Eumeu la woon tey mooy ba ñu match ñëpp ne woon nañ Eumeu Sène moo doon bëre donc euh, bañ ba ñëwaatee tamit seen deuxième combat Eumeu Sène ko daan tey avantage am mooy loolu noonu confiance boobu mu am ci Eumeu Sène ci Lac de Guiers confiance boobu mu am ci moom tey loolu mooy avantage mais nag mu ñëw xam ni tam mu ngi bëre koo xam ne wax dëgg yàlla euh, mbër bu naqaree bëreel la. Hmm. mbër bu naqaree bëreel la tey moom hmm. avantage am ci combat bi rek mooy tey mu bépp erreur bu mu mës a def ci carrière na ko wax ma sax ci combat mais ci carrière bépp erreur bu mu mës a def mu bañ ko répété ci combat bi parce que combat bi combat boo xam ne tey d'après moom si lu mu jógee Eumeu Sène hmm. euh, combat boo xam ne obligatoirement dafa war a furli parce que sinon rek euh, bu ci génnul rek. yoonu làmba mun na fi jaar yàqu. jërëjëf Balla Diouf ma lay jaajëfal bu baax. merci ko jërëjëf.